ma wax la ma wax la tuuti ci man gis nga président bi mu nee du dem élection day bàyyi dama ñëw seet si ko fekk ko ma ne ko président mu ne ma ma ne ko man damay bàyyi sama liggéey dama bugg nga yeewi ma ma bàyyi sama liggéey mu ne ma pourquoi ma ne ko dama bëgg a ñëw nekk sa service gratuitement mooy ma Souleymane lu tax nga bugg a def loolu ma ne ko parce que yow yaa ñu defal ba fii tey ñun ñoo la war a defal ñun ñoo war a ne sa wet liggéeyal la ma ne ko laajuma dara mu ne ma koo xalaat mu remplacer la ma ne ko diw laa xalaat diw boobu ñu woo ko waxtaan ak moom yëf yi tourné ni mu tourné moi j'ai pas de problème man su ma doon positionné kon du ma wax ni ñuy def xam naa ko su fekkoonte ne positionné wu dans la vie rek rek rek moo tax pour am dara kon du ma def sept ans d'exil lu ne ma daj ko lu ne ma dund ko ma souffrir ci sama famille souffrir ci bu doon positionnement gis nga Ablaye Wade bu taxawee kilifa sax bu ma séenee moom mooy doxal boppam ñëw fekk si ma kon Macky du nekk premier ministre ma dem yow xam nga sama digganteeg famille Macky yow xam nga di sama digganteeg Aliou kon du ma fi bàyyi lépp dem bi may dem Karim daf balaata may dem bi ma nekkee Idrissa di ko defaan Karim daf maa woo ne ma am nga Idrissa may na la terrain ma ne ko déedéet may na la kër ma ne ko sexuñu ko mu ne ma mi ngi maye ay terrain mi ngi maye ay appartement du la ci jox looy def ak moom kon du ma def loolu donc mën nañ maa man reprocher lépp ba mu des positionnement pour ay poste pour ay fonction et j'ai décidé même man ci sama bopp ne bugguma jouer bugguma jouer un rôle officiel Amadou xam na lu ma koy liggéeyal bis bu ne xam na lu ma koy jàppalee bis bu ne léegi boo nekkee ci interview ngay waxtaan baat mën naa ñëw nga prononcé baat boo xam ne xëy na mënoon nga ko prononcé neneen mais li mu traduire yow ci sa bopp yaa ko wax nga ne yëngatuwul dama ne ko moo tax ma ne journaliste bi dafa war a gën a yëngatu dafa war a won nit ñi ne chef la leader la dama jàppoon ne débat bi au Sénégal war na mun a permettre lu mel noonu